jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internetu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci biti ñun dañ leen gën gënuñu leen si il le faut ñun dañ leen fay fekk si mais nañ génn suba nañ génn ñu wan ne carrément Macky Sall baayam moomu réew mi moom moomu réew mi on il a été élu il a été mhm. élu heure demam bu jotee day dem te ba pare man lima ma ci métti ba métti moom ma il est tellement arrogant. tellement arrogant dans ses propos. tu te xam may naa dañu bëgg dañu bëgg victimisation jooy jooy du gis nga prisonniers yi ñuy wax ñaar blessé nañ leen ñu bëgg a dee. pourquoi mu war a nekk miracle bien sûr que ni warul yomb tu dañ ne révolution lañ nekk ak résistance. Mm. ñoom ñu lancé le message nekk ci prison ba teewul ñu yëngatu ba ñëpp yëg ko boobu la lañ lañ leen war a wallu si au contraire boobu lañ war a jël exemple ci ñoom. man daal su ma sañoon débat bi da nga koy teg foofu ñu wax askan bi lan moo tax waruñu seetaan li muy jàll. dëgg yàlla en tout cas tout se joue demain. tout se jour demain. na ñëpp génn une forte o a besoin d'une forte mobilisation. tey y a même l'opposition ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo doon ñoom ñoo doon wax ne dañoo neutre comme opposant sëgëm ñooñu sëgëm ñooñu sëgëm ñoo génn ils disent sont pas d'accord ils vont battre campagne. sëgam ñooñu ñoo génn asamak la population sénégalaise ñi nga xam ne ñu ngi toog seen biir kër moo teel doy na. doy na ama ñi war a ñi war a ne nii ñoo ko ñoo ko ñoo ko ànd ak moom tey maanaam les forces de sécurité ñi nga xam ni tey dañ ni am na pouvoir fu muy toll ñoom am nañ sañ dem jël ko doxal del fexe ñu organiser jox ko teg ko ci loxo kenn ñooñu tey jii nii ñoo tawul man tey mën naa ni tey bu ma fekkoon ca palais ba ma nekk peut-être protection rapprochée wala euh, membre force yi nekk autour laa de attan naa sacrifier sacrifier sama bopp pour waa ji jóge fi moo xam nag ndax da koy dóor bal ci bopp moo xam lan ngay def moo xam da jël ay combine mais pour nga def loolu tey jii nii il faut mbo booloo am déggoo am kenn du leen rax